Euh, ànd fekk délégation bu am bu yaatu euh, ci fukki communes yi ak juróom-benn yëpp tey seen représentant ñëw nañ fi euh, ñuy ñëw nag tey ci benn affaire boo xam ne ni tey dafa daj Sénégal maanaam dafa metti waar réew mi yëpp muy suñu suñu président groupe de presse bi muy bogaan Gueye bi nga xam ne tey dafa nekk politicien ñu ànd ak moom fii ci département bi yàlla def ñu teg ko natt boo xam ne nii tey dañ cee laalaale euh, presse bi nekk Sénégal gépp bu ma waxee presse bi mooy euh, Sen TV ak euh, Tribune ak Zik FM yooyu yëpp ñu ñu am dal ci kawam pour bëgg leen a fayu ay lempo bëgg a naax saayal seen liggéey Euh, sept per sept sept sept cent personnes yoo xam ne ñu ngi liggéey ci euh, groupe de presse boobu ñu bëgg xañ leen ay ab euh, liggéey ba dootuñu liggéey loolu moo ñu fi indi tey maanaam tey télé bi ñu bëgg a tëj laaj deux milliards yoo xam ne ni tey ci lempo loolu nekk loo xam ne dafa naqari askan waaye naqari na ñun politiciens yi nekk ci département bi te nekk ci gëm sa bopp président Bougane dañoo am ci moom yaakaar Sénégal am ci moom yaakaar mu créé euh, parti bu ñuy wax gëm sa bopp ñu ànd ak moom jublu ci ay élection président Macky Sall ak gouvernement nekk ba élection yu jub si des ñetti weer mu ñëw jël lemp boo xam ne ni tey euh, lemp bu ñëpp bokk la mu jël benn nit singali ko ne ko da nga fay deux milliards wala ñu tëj sa télé loolu doytut mu ne Ah, maanaam matériel bi nga xam ne tey moom la seen TV yore yëpp dañu ko bloqué dootuñu liggéey nit ñi nga xam ne ñoo ci nekk ñooñu dem def semence dootuñu liggéey nekk taxawal ci réew mi loolu nag ñun nga xam ne dañuy politique te réew mi tax ñuy politique ndax anduñoo buggaan ngir boppam anduñoo bugaan ngir suñu bopp Sénégal moo tax ñu ànd ak kilifa yi am ci moom yaakaar xale yi am ci moom yaakaar jigéen ñi am ci moom yaakaar ndaw ñi am ci moom yaakaar ñu ànd ak moom pour jox ko président jox ko réew mi pour mu suqali réew mi jafe-jafe yi mu nekk bu ëllëgee réew mi nekk ci condition yu baax depuis 1960 ak léegi réew mi mënta baax ñëpp am ci ndaw lu mel ne Bougane am ay 55 ans yor ab xaalisam taxawaaru jiwul dewul ci beneen réew lu dul nekk Sénégal yël doomu Sénégal yi liggéey loo loolu Macky Sall ak gouvernement taxaw na loolu du fi amee loolu moo tax ñu ñëw fii tey ne loolu dañ bokk ak Bougane xeex bi bokk kook ak entreprise bi nga xam tey moom la Bougane créé ñuy ay doomi jàmbur di doomi jàmbur yoo xam ne liggéey leen ñor politique taxu leen a jóg looloo tax ñu ñëw soutenir leen tey jii ajuma ji ànd ko gor yii fi ànd nekk fas yéene jox bi ci njëkk mooy ah, kilifay diine yi nekk ci département Mbacké ñu tàmbalee ko ci xalifa général de Mouride te ñun ñu yàgg ak ñoom ndax am na ñoo sëriñ si connaissance ndax taalibe lañ te duñ duñ mës bañ a doon bi dëkk Touba dañ jël suñu tànk dem ci ñoom wax li li nga xam ne tey loolu la Macky Sall ak ñoñom bëgg a def bëgg euh, président Bougane gi bëgg koo def point euh, maanaam euh, presse bi nga xam ne tey askan wi moo ko fi bàyyi ndax ku la xam ne seen TV ah département bépp moom la ñuy déglu seen TV xam nañ ne Sénégal gépp moom la ñuy moom la ñuy déglu te askan wi doo nga ko tax a jóg Macky Sall taxaw ne da koy tëj taxaw ne day day day day raafantal ñi fi nekk ba dootuñu dootuñu tekkee ci dara loole la politicien ne loolu duñ ko nangu danañ danañ dem ci sëñ Mountakha danañ dem ci sëriñ Sidi Mbacke danañ dem ci sëñ Awo danañ dem ci sëñ Abdou Karim Mbacke danañ dem ci sëñ eh, si Ahmadou Makhtar danañ dem ci sëñ Moussa Nawel danañ dem ci sëñ euh, sëñ Soyibu sëñ Seex sëñ Soyibu danañ dem ci sëñ am sam sëñ Abdoulaat fépp foo xam ni jaaroon nañ fa danañ fa jaaraat wax leen ñu ànd ak ñun ci xeex bi ñaanal ñu jàppale ndax su ko fekkoon da koo def bugaan def ko beneen point de presse beneen yeneen beneen entreprise boo xam ne nii ci presse la nekk su boobaa ñun ñu mën a xam lan la waaye mënoo presse yi nekk Sénégal liñ toll nga jël benn euh, benn benn entreprise na ko da nga fay 2 milliards loolu nekk na loxoy politique di ci ànd gannaaw politique di ci ànd nag ñun ñu doon ay politiciens te ñun biñ dalee politique Macky Sall mi yor réew mi politique wut danay ànd ak moom xeex bi ba loolu maanaam du jàll. demee naa dong moo fi coow ndax wóor na leen benn point benn entreprise boo xam ne teg nañu ne 2 milliards te wóngu ko amul. amul waaw maanaam des médias euh, daaw bare nañoo tëj compte Bougane Gueye mu ne Thiel waxul dara. Bougane bu waxee tey nit ñi ñu ne ñu jóg ànd ak moom ah, dañoo dañoo bëgg suuxal liggéeykat yi nga xam tey ñoo ne ci réew mi tey liggéey siinu ñaq moo tax Bougane jóg waaye Bougane bu doon yëfi boppam dong la daaw ba ren dañoo tëj ko woon tam te dara mi ngi toog jàpp ak njàmmoram muñ ko waaye xale yu ndaw yi nga xam tey da leen a jël ñuy liggéey ci réew mi di yóbbu ci seen kër di di añe seenu ñaq Macky Sall bëgg koo ñëw naax naax saayal ko moo tax Bougane ak ñun ñu tey di ko xeex. Macky Sall ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñëpp di ay politiciens soxla réew mi ku ci nekk tuumaal na la ndax laale nga ak état ñun waa Sénégal ñëpp nag dañoo ànd tànn ne koo xam ne laale laalewut ak état musul lekk dërëmu état moom la ñu soxla. kenn la ñu gis muy bu Bougane Gueye Dany ñu tànnal ko suñu bopp fës ko yéenee dénk réew mi 2024 tax Macky Sall na du fi amee di ko tuumaal. duñ ko nungu duñ ko mës a nungu fii ci Touba ak Mbàkke lu mu jaral Macky ak ay ñoñam jaral nañu lu ko ëpp te dinañ ko jëflante ak moom ba fu mu yem neex président Bougane dañ koy bàyyi mu liggéey liggéeyam président Bougane Sénégal ñoo ko soxla Sénégal ñoo ko teg ci kanam nañ ñu ko bàyyil suñu président Bougane 2024 mu jiiteel ñu réew mi jëlee ñu ci jafe-jafe ak coono ñun suñu doom yi dee ci mbedd yi daf ñu naqari suñu doom yi ñu jàpp di leen tëj ay prison xanaa moom li ma soxla mooy ñi nga xam ne président Bougane daf leen jëloon di leen liggéeyloo président Bougane bu Sénégal ñëpp defoon ñu moom sàcc jóg fi ndax ndaw ñi mi ngi leen jël di leen fay salaire yu baax di leen liggéeyloo léegi Macky Sall ne ndaw ñooñu dañuy delluwaat ci tuusi di sàcc duñu ko nungu ñun yaay lànk nan duñ ko musa nungu Macky Sall nag du ma président Bougane ñun la ak moom moom diggante Touba ak Mbacke te lu mu laaj ko joxe duñ ci bañ dara. mu mënuma concevoir Macky Sall woote plan émergent Sénégal émergent ni Sénégal émergent boo ko tuddee il faut nga woote emploi di woote emploi di di tëj ay entreprise ak i sociétés yoo xamante ni mu ngi employé plus de 1000 personnes donc ñooñu dañuy dem ci dañuy dem chômage. kon damay laaj Macky Sall bu fekkente ni bëgg gi muy bëgg gi mu woote bëggu ko réew mi ak développé ko ak euh, emploi de la jeunesse bi mu ni dañu koy offrir kon fu mu koy jaarale wala dafay tëj buntu te dafay dafay tëj buntu tijji buntu parce que boo dee boo dee tabax ndaa boo amee ndaa toj ndaa du tax nga bari ndaa te ñi nekk ci ci entreprise de la presse bi nga xamante ne mooy euh, des médias ñoom dañu nekk ay sénégalais nekk ay citoyens kon mënuma concevoir en tant que président de la république di joxe ay euh, di joxe ay ordre yoo xamante ni nii dañuy dal ci benn institution boo xamante ni réew mi moo ko tax a jóg ñuy bàyyi yeneen étranger yoo xamante ni ñu ngi fii et topp leen dara euh, du lenn lu ñu leen topp ñuy topp benn entreprise boo xam ne ñu ngi koy toppee plus de un milliard wala deux milliards yoo xamante ni nii mu ci dañ koy dégg nii rek te ci période Covid bi. première vague bi président daf ni woon bépp entreprise de la presse dañ koy bàyyi dañ koy may fisc dootu ko fay kon bu jógee tëb tëb songaat ñu danañu jaaxle ñun ñi nga xamante ni ñu ngi ci ginnaaw président Bougane kon bu dañ naan lii politique moo ko lal te lu politique lal nag politique moo koy xeex mbéjum kanam borom a koy fayul boppam ñun nag danañ ci dem jusqu'au bout ni ko président euh, Cissé waxee léegi euh, ci loolu laay delsi danañ dugg fi ñu war a dugg danañ ànd xeex bi ak président Bougane Gueye ginnaawam yoo xamante ni tooguñu benn yoon lu dul di xeex te di ko jàppale